ay jërë ngeen jëf Aïda Diallo mu fàngaamu ci digg saalam toog ne faax ne kuy feesu fas photo boobee moo nekk ci xët mu njëkk Vox Populi Le Quotidien ak Source A journal Vox Populi bind ne soxna Aïda Diallo mi ngi jéggalu xalifa bi démb la defub déclaration ci benn vidéo di tuubal xalifa général des mourides Serigne Mountakha ba Bassirou di jéggalu it umma islamique gi yëpp wax na ne li Serigne Mountakha Mbacké Bassirou bëgg loolee lay def fas te yéene xët benn yoon ndigalal xalifa bi journal bi teg ci xamal ñu ne Aïda Diallo jóge na ngaa bu daw laqatu si Ndakaaru Source A Diallo wanaasu na la mu nekkee woon génn na ca ba wecc loolee ginnaaw bi mu fi defee lu merloo kilifa yoonu murit gi yëpp Le Quotidien nañu Aïda Diallo ak Aïda Konam seenug a baax waa ko mbooloo mu takk ñoo demoon ca kër ga mu nekk ca Ngaabu bëggoon koo defal affaire gendarme yi ñoo fu ñu man di nekk dinañu leen wër ba gis leen génne leen biir Touba ak Ngaabu démb ba ko gendarme yi di rocc ak di ko rawale moom soxna Aïda Diallo l'observateur mi ngi ñuy nitil ni ñu ko defee ubbil yéenekaay bi li ko tax a mucc benn waaye la bu ñu naan Mame Mbaye Niang déeb conseiller municipal ca Touba Mosquée doon it porte-parole njabootu Kër Niang waa ji nee na waa l'observateur bi Serigne Mountakha ba Bassirou defee déclaration bu mujj bi bu nuppi ci laa yégée ne am na ay taalibe yu bëgg a ñëw ngaabu bëgg a génnee soxna ay Diallo dàq ko mu génn dëkk bi Mame Mbaye Niang ne séquma ak soxna Aïda Diallo dara waaye boroom këram ba woon di Cheikh Béthio Thioune sama wóllëre la woon ci laa fexe ba jokkoo ak ñi wër Aïda Diallo ne leen ne leen soxna si na fi jóge nu mu gën a gaawe ndax bakkanam a ngi ci xott sëriñ bi ñang ne am na ci ay jëwrinam yoo xam ne man mii maa leen dugal ci sama oto génnee leen dëkk bi la si nekaay nañu Aïda Diallo dafa rëcc ci démb gaa ñi dañoo demoon ca këram ga ca ngaabu bëggoon ko defal affaire libération nañu sàndarma ye ñoo ko ca génnee maa ngi jéggalu xalifa bi di ko tuubal di jéggalu yoonu mu murit kàdduy Aïda Diallo la yu journal ko Échos ci xët mu njëkk mu teg ci ne musuma am yéeney def lu naqari xalifa bi yéenekaay bi dañu soxna Aïda Diallo ay deux heures du matin ci la yolleeku génn ngaabu ba muy xamul fan la jaar ngir bañ ku ko muuraake honorable député Fatou Thiam doon ku jege lool njabootu Cheikh Béthio Thioune gi neñu ci journal bi Aïda Diallo dafa woor Cheikh Béthio Thioune ndax li mu def li leer ba leer moo di Cheikh Béthio Thioune amul lu ko neex fa mu tëdd journaliste Les Échos yi ne ko ndax yaakaar nga ne li mu def ci màggal gi dina ko def ci gàmmu gi di ñëw député Fatou Thiam ne leen xanaa mu bañ boppam dëgg Soleil national nañu moom soxna Aïda Diallo Aïda kon yi ànd ak moom am na ca ñu tàmbalee rocceeku di ko wan gannaaw benn benn Serigne Assane Dia jëwrin universel ci la bokk jëwrin Mamadou Dieng ci la bokk ko ak jëwrin Babacar Seck immeuble des Lions di taax ya nekk ca Maris te ñu ne ña fa nekk nañu fa jóge ndax wóoratul suur soit nee nañu ñaar fukki immeuble ya fa nekk fukk yaak ñeent seeni borom lànk nañu kandaare ne duñu fa jóge moo tax préfet bi dànkaafu na leen dànkaafu bu mujj xamal na leen ne bu ñu ñëwaatee courant bi la ñuy coupé coupé ndox bi bu nuppi ànd ak takk dere ñu génne leen mu ne immeuble yi bañ leen waree daaneel yàgg na cib conseil des ñu defoon atum 2013 ci la ñu jëloon dogal bi ndogal la lu ñu def la mooy li l'observateur di laaj ci li xew démb ca Sicap Mbao